i at a ngi ni yoo xam ne mënuñoo fexee ba jële jafe-jafe ñàkkum ndox mu sell mu ñu jëfandikoo ci biir dëkk bu sell bii di Touba ngir dakkal lu ni mel nag saafara jafe-jafe yooyu loolu mooy sababu ndaje mi nga xam ne amal nañu ko niki tey jii dëppoo ak juróom fan ci weeru mai ci mairie bu Touba teewoon na ko kilifa gi nga xam ne moo yore wàllu forage mi ci màkkaanu ñu dénk wàllu ndox mi ñi nga xam ne ñoo di OFOR bu Touba maawu raxmati mi ñu dénk ndox mi mairie Touba ca reeteet ndoxum tuuba ak yeneeni kuréel directeur bi nga xam ne nag moo yore lépp lu jëm ci wàllu forage yi teew fi ci ndigalul jëriñ diñ dénk ndox mi dikkaat na ci njariñu ndaje mi si biir waxtaan bi mën nañ cee jàpp ñetti ponk ponk bi njëkk mooy forage yi paan forage yi paan ñett la woon yàlla dimbal nañu mooy ñaar yu defar nañ leen Le forage yi nga depuis daaw defar na leen le forage forage aussi. aussi ministre de l'hydraulique et de l'assainissement docteur Cheikh Tidiane Gueye jox instruction ce c'est pas normal Nous ñu fait un forage depuis at de doxul mu ne ma solution pour le defar boobu la ñu wootaan soo njaat waa Sénélec wax dëgg yàlla c'est l'occasion aussi ñu remercier directeur u Sénélec bi nga xam ne jël na matuwaay yëpp fi ak ñaari weer maximum forage yooyu dinañ mais ministre ne ma ñaari weer ëpp na pour que forage yi bañ a dox fexeel fii ba ajuma forage yi dox looloo waral su ngeen demee foofu ñett ci forage yooyu ñu ngi leen di defar par groupe électrogène jënd nañ ay groupe électrogène yoo xamante nañ suñ ko yóbbu def carburant fii balaa Senelec di pare foofu muy euh, Bagdad muy Alia muy Fatul Fata yooyu moom wóor nañu fi ak weer forage yooyu dina yi des en attendant Senelec branché sous préfet bu arrondissement bu Ndaam teewoon ndaje mi jiite woon ko itam di xamle ne daal ndaje yu mel nii dana bari liñ koy def ndax solo si foo ko natt weesu na ko ndax ci dolli itam mën naa indi saafara ci jafe-jafe yi monsieur Xarma. ñëpp xam nañ ne Touba ndox mi dafa am solo colonne en fer yi bu ndox mi ñuy yëg ci biir tur yi souvent dafay indi muy muy bëri loolu moo waral suñu forage bi am ci des na dégg moom wax na léegi ci biir ndox mi que ni commande nañ déjà benn commande bu ñu def semaine bi pour indi ay ay colonne gli impatti che abbiamo critico che l'anno passato quindi vedete la domanda che mi auguro non mi che non mi fui con la cosa lì non mi vuole formativo di una formalità deve quindi inshallah assoluto ma assoluto quindi abbiamo un livello sapete via una figura con più grande progetto che non è stata e quindi mooy waajalu màggalu Touba ci waajalu màggalu Touba ci biir discussion yi nit ñi wax nañ ne forage yi bëri na mais dëkk bi amul techniciens yi ñu ne am na problème wax il faut ñu régler ko mooy stockage mooy forage bi su tànkee ndox bi fan lañ koy denc ci loolu état du Sénégal na daaw ñaari réservoir bu six mille donc soo ko jëlee mooy équivalent douze château d'eau incha allah ñu ngi leen ñu ngi koy ñu ngi la ca topp aussi ci waajal màggal boobu Touba presque am na ñeent fukki forage ak ñaar soo amee ñeent fukki forage ak ñaar mënoo toog rek ba forage bi paas wala pompe bi nga toog di defaraat. loolu état du Sénégal def na système de télégestion nga xamante ne fi mën di ñu xool forage bi naka lay naka naka lay doon. réseau réseau les un problème techniciens ils savent euh, euh, litres 40 litres Les l'eau état état TDR financement recruter consultant rek pour mais la solution c'est des solutions conjoncturelles pompe bi baat na forage bi doxul lan la ñuy mais état du Sénégal fi mu ne joxe na benn solution nga ne président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mu fi ñëwee nee dina régler problème ndox Touba te loolu fi mu ko teg wóor la ndax dossier bi pare na mu ngi si table am pour ñu jël décision pour régler ko définitivement aji mi nag teewoon na ko mboolem ñi nga xam ne ñoo séq ndox mi maire bu Touba Serigne Abdou Lahad Ka ak polomier yi woo itam taskatu xibaar yi ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne rek Touba soxal na rawatina ndoxum tuuba